ne leen feebar bii di coronavirus Covid 19 feebar bu am la te mi ngi rey ay nit man bokkoon naa si nit ñi nga xamante ni gëmuñu ko woon mais yàlla dafa def mu dal ma maa ngi fii si biir hôpital Dalal Jàmm di gis feebar bi ni mu sonalee nit ñi ak dañuy rayee bis bu nekk ñu ngi dëgg kaa yaa ngi gën a yokk bis bu nekk ñu ngi dëgg armeel yaa ngi suul di suul moo tax ñun ñoo ci war a mën a génne suñu popp rawatina nag ndaw ñi rawatina jeunes yi te feebar bi doon li nga xamante ni lu am la dañu respecté li nga xamante ni moom la ñu yi wax gis ngeen maa ngi lii ma nekk la sama bulletin ngi ko xool vous feebar bi lu am la te mi ngi def ay ravage connaissance de cause laay waxee euh, sama deuxième jour ma àgg foofu noonu yaa may dégg dafa am benn vieux bi nga xamante ni ndeysaan man ak moom ñoo ñu dee woon cabinet mais dafa ñàkk bakkanam ma gisat fa ñeneen ñi nga xamante ni ay mag la ñu ñàkk seen bakken te feebar bi nekkul mag rek lay attaqué am na ay jeunes comme man yu fa nekk am na ay femmes yu fa nekk am na ay jeunes fii yi nga xamante ni ñi nga fa fekk naa fa ñi nga xamante ni ay jeunes filles lañ ñenn ñi ay sénégalais lañ ñenn ñi di ñu ay sénégalais ñe fekk naa fa sénégalaise fekk naa fa jigéen bu nekkul sénégalaise feebar bi bàyyiwul kenn mu doon ko pauvre mu doon ko riche ñëpp lay attaqué te feebar bi mi ngi def ay ravage feebar mi ngi def ay ravage ndax nekk ci biir donc ña fa nekk sonn nañ benn sonn coono bi nga xamante ni yàlla rek moom moo xam beneen bi mooy li ma gën a metti mooy jeunesse su rawatina ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci banlieue bi ñu ngi yaakaar ne feebar bi amul di dañu dugg nu ñu neexee respecté wuñu lu ñu docteur yi wax te dañoo war respecté li nga xamante ni mooy docteur sama professeur euh, professeur Massamba Gueye dafay wax lu am solo mu ne mbir mi si mbiru jàngoro bi kenn mooy suñu xarit kenn mooy suñu àndandoo mooy doctor li ñu docteur yi wax nañ koo def respecter li nga xamante ni moom mooy distanciation yi respecter li nga xamante ni mooy mesure barrière yi kenn ku si nekk si ñun fexe ba yar sa bopp ci lu bëree bëri bëri ndax je pense que kenn ku si nekk si bopp ñun ñoo ci mën a génne feebar bi ndax feebar bi maa ngi mu ngi fi di dox te kenn mënu si mucc. ndaxte luy dam ci ngelaw li li nga xamante ni day génn ci ay salive des trucs comme ça docteur yi mi ngi naan ñu sol sax verre au delà des masques yi ñuy sol sax ñuy solaale verre da ci baaxaale parce que euh, liy dugg ci liy dugg ci gémmiñ gi di dugg ci bakkan yi mën dugg ci biir bët yi loolu lépp lu ñu war a mën a bàyyi xel la te tamit ci banlieue bi doo gisee bi ma génnee sax laa gën a tiit du ma fen bi ma génnee ñëw gis gaaraas yi gis oto yi ni nit ñi ni ñu ci mel di njëkkante respecté wu lenn ma ne ah lii de moom ëpp na dayoo lu ñu duggoon ba ñam li ma ñam ci biir lu génnee dañ xam ne mbir mi la yane wuñ ko kenn nag mais pour moo dire mon mbir maa ngi fi mi ngi def ay ravage ci biir hôpital yi ak ci biti nañu fagaru ñun ñoo ci mën a génne suñu bopp kenn ku ci nekk na yaraat ca bopp te te euh, du fekkee ni lu mbir dafa dal seen kaw kenn ku si nekk ñun da war a mën a changer sa comportement lu bëree bëri je pense que virus bi ñu ànd bi mu nekkee muy coronavirus dafa war a tax ñun en tant que doomu aadama rawatina Sénégalais ñu xoolaat ci lu nekkin bu baax a baax xool lu ñuy waxee xool li nga xamante ne moom la ñuy jëfa ñuy jëfandikoo loolu xoolee ñun dañu yar ci lu bëree bëri bëri lu bëri dañ ñu ko jéggaane indil ñu ko loolu ñu jéggaane ñu jël ko teg ko fële te may appel nit ñi ci li nga xamante ni moom mooy lii ñëw muy vaccin yi accès gul nag nit ñi dañuy vaccin vaccin vaccin ndaxte vaccin mooy prévention je pense que lu ñu si àggee nañu def li nga xamante ni moom la ñu docteur yi wax damay ñëw ci waxi professeur Massamba Gueye yi moom tamit ndeysaan ku baax euh, mu doon patrimoine euh, vivant nee na jamono ji ñu toll kenn mooy suñu xarit kenn la ñu war a déglu mooy docteur nañu déglu docteur yi te tamit dellu ci fajum cosaan mi xool li ci baax ñu jël ko boole ko ci mbir mi loolu mooy message bi nga xamante ni moom laay jox suma mbokk yi rawatina jeunesse bi nekk ci banlieue bi ñu gëm ni feebar baa ngi fi te mi ngi rey ñu gëm ni feebar baa ngi fi te kenn mënuñ see génne suñu bopp ku dul suñu bopp respecté la ñu docteur yi wax encore une fois.